mbégte bu baax a baax ak contentement ci ànd bi geen di ànd ak ñun ci suñu ay programme ñi ngi leen di jaajëfal bu baax a baax tey nag ñu ngi fii ci Olympique Club euh, fekk fi le grand champion muy euh, Diène Kairé di euh, doomu booy Kairé di doomu lu doomu le grand champion tamit nekk ka nga xam ne nekkatul ku ñuy présenté ci làmb mbër ñu ngi lay ziar di la dalal jàmm. waa gaynde ñu ngi lay ziar tamit xam nga di rafetlu seen teewaay fii mm-hmm. di nuyu waa Leewtoo yëpp mm-hmm. waaw di patron di ko ñaanal jàmm tamit xam nga di rafetlu seen teewaay di nuyu fii ngeen ma fekk muy Olympique club di nuyu ku ci mel ni sama coach gi waaw moom vraiment ku sonn si ñun la xam nga ak euh, footballeur yi may entraîné ndool wax dëgg yàlla ñoom Babacar la ma gaa yëpp Cheikh Mbacke bàyyi ma kenn Pa Moussa mbër yi ma fi entraîné ndool basketteurs yi parce que fii mën naa ne ñëpp a ngi fi. xam nga di ziar olympique bi yëpp daal bàyyi ma kenn ñi ci buntu beeg ñëpp Ousmane Thiam tam ñu ngi koy ziar. mu ngi siy jàpp di nuyu Medina bi ma jóge waaw vraiment mën naa ne gis naa niñ ma taxaw ak gis naa ni ñuy waajee combat bi waaw di nuyu ku ci mel ni Baba Diaw bu baax vraiment ak soxnaam aw namu ma dara si moom laa nekk mu ciy jàpp tamit di ci def. mu lay ay ceeb yu baax yoo macha allah. namu ma dara mais dégg naa jéen bëgg ceeb <laughs> mais ceeb na kenn bañu ko wax Sénégal ceeb la am. non ceeb la xam balaa ngaa xam nga tukki. dégg naa waaye sumbu jun moom. ñoo raw sumbu jun waaw xam nga sumbu jun yi dem géej jàpp rek. génne jën léegi andi ñëw xam nga loo xam ne daal macha allah ak ay raqam xam nga ñoom as ñëpp yaayam daal. vraiment aw ma seen ñu ngi may toppatoo. Gueule Tapée Fass waaw sumbu jun mool xam nga mareyeur yi waa ñëpp cat ba cat ñoom Aba am di ñu jàllale ko rek. Papa Ndaw xam nga. ñoom Baatalaay am am di tafaaxaar yàlla ñoom ñëpp. sita aseg naa derkale sita marine mën naa ne ndakaaru daal xaar yàlla kasoor Grand Yoff ñëpp ñu ngi waajal combat bi Liberté 6 Tëngéej kër njaayloo waaw vraiment daal ñëpp ngi fi xam nga di waaj sunu combat le 4 avril incha allah wax nga ko hmm. ñi ngi wàcc sa combat le 4 avril hmm. di combat ba nga xamante ne bii nag euh, ci bis bu mag nga koy bëre dëgg la di bëre ak champion bu mag ba nga xamante ne bii tamit hmm. euh, nekkatul ku ñuy présenté ci làmb jén fan nga toll ci waajtaay bi préparation bi waaw xam nga waajtaay bi mën naa ne fi mu toll nii moom ñu ngi ci fin waaw instant yi moom coono bu ñu doon daj dañ nañ ko waaw instant yi moom si ay mottali lañ nekk rek boo gisee ni ñuy entraîner sax xam nga ak sama coach yeeg ay footballeur sax laa nekk di di defal finition yi pour liggéey vitesse bi mm-hmm. waaw vraiment daal mooy waaw di remercier coach bi daal parce que li ñu bëggoon am yëpp amoon ambition ci combat bi yëpp yàlla may nañu ko. kon mën nañ ne côté physique fi mu toll nii xel mi dal na. waaw macha allah xel mi dal na te boo gisee entraînement yi allah di nga xam ne xel mi dal na mm-hmm. waaw liggéey nañ daal lépp mm-hmm. heure doole liggéey nañ doole heure vivacité ñu liggéey ko. vivacité bi fan nga ci toll pare nga ci wala yaa ngi ci ba léegi. waaw pare nañ ci parce que dama ko ci liggéey coach lu am solo soo paree dem école écrit su mbaju liggéey seeg sam papa ak suñu coach yi foofu ñoom maxu grand père xam nga ubi combaan ñoom ñëpp ñoom père Abou xam nga ñëpp daal vraiment ñu ngi ciy liggéey liggéey bu am solo waaw te am nañ ci yaakaar bu baax. champion nga jóge ci combat ba nga xamante ne bii combat bu doy waar la. Mm. sa diggante ak Coens. Mm. ñu bëri doon xaar combat bi jeexee ci li nga xamante ne bii mooy jël. mais pratiquement gis nañ na combat ba jeexee. Mhm. yéen ñaar da ngeen a match nul. amateur yu bëri mere leen yéen ñaar. waaw dëgg euh, combat boobu ban jàngat nga ca defee. waaw xam nga jàngat ma ci def mooy àdduna sax laay wax lépp loo lépp loo jógee rek dañ ci def jàngat. kon champion la maa ngi koy nuyoo au passage xam nga bëri nañ yàlla loolu la dogal ne xam nga lii nii la war a demee comprendre nga ñu waajoon ko comme nii tamit xam nga. jëloon ci benn poids boo xam ne tamit mën naa ne gannaaw yàlla loolu moo a xawoon handicapé tuuti. poids ba dafa bëri woon waaw allah ba xam nga da dama diisoon trop. ma ñëw bii paa ma liggéeyloo ma lu bari loo xam kon mën nañu wax ne bii yoon da ngaa da ngaa da wàññi poids ba nga ànd woon. sa compte compte mm-hmm. waaw wàññi naa ko tuuti nag wàññi naa poids bi xam nga. Mm-hmm. pour mën a xam nga gën a mën a joxe daal mm. mm-hmm. mu mel ni supporters yi ak euh, amateurs yi amel nga leen bor. waaw bu baax amel nañ leen boor te incha allah dinañ leen ko fay waaw ça dépend tamit ci adversaire bi rek waaw li hmm. muy waxee moom li muy waxee bu ko jëfee làmb ji dina neex parce que dégg naa moom mu ne hmm. yow sant moo la dugal ci wax moom xam nga foog mu wax parce que moo daan ku ko xam ay signature am yuy jàll ak yëpp day jël wax ji yëpp moom ko mais nag li muy wax jour combat bu tax bi li muy wax ci signature loolu lay def ci jour compa waaw bii nag bu ko defee bu ko defee gars yi gis génn ba ñu gis hmm. waaw li muy wax nii jël takk rajo yëpp ne làmb ji moo ko moom ak lépp bés bu ko jëfee gars yi nañ gisaat jéen ba ñu naan gis kon da nga jàpp ne moom dafa nekk di takk ay rajo ah si mooy ah day takk rajo yi mu ngi wax rek yàlla xam na boobu ba léegi mu a wax la déranger rek war nga xoolaat sa bopp waaw kon wax bi yëngalu la non déedéet yëngalu ma man géew rek moo ma yëngal géew biir géew moom loo ma fa ma xam ne lii dëgg la waaw mais ay waxam moom déranger ma sax te ba jour ba dina xam ne ay waxam déranger ma incha allah waaw dëgg la te loolu buy seetlu mbëri ko fi mës a wax yëpp xaalis boobu da leen fot. ah bon waaw am nay yu bëri yu fi jàll du ma du ma ñëwaat mais yi taxaw ne diw xaalis ñu boole yëpp tey boo xoolee xam nga mooy loolu waaw man carrière moom boole moom peut-être moom xaalis mais man carrière dama ko bëgg daan continuer sama yoon. Mhm. Modou Anta nekk mbër mu naqaree bëreel. Mhm. nekk mbër mu dëgër mbër mu solit ma nga xamante ne bii. Euh, booy booy bëre ak moom war nga pare ci lépp. wax nga ko sànq. Mm-hmm. macha allah pare nga ci lépp. Mm-hmm. mais combat bi euh, lan la laaj fi mu toll nii. waaw li mu laaj mooy fulla ak fayda rek. fulla ak fayda parce que làmb moom boo defee li nga war a def yëpp say mboq nekk sa ginnaaw jàppale la côté bi ñu la war a jàppale yëpp. Mm-hmm. li ci des nag mooy nga def ci fulla ak fayda. waaw du nuyu aussi xam nga ku ci mel ni national xam nga Jaafara Saaxo moom mu ngi ci moom mu ngi ci combat bi Papi Jilaa Booji tamit xam waaw ñoom Idrissa Gana Gueye xam nga sama doom nday yoro Lamine lii gaa yëpp daal pro yëpp maa ngi leen di woo waaw ñu jàpp ci combat bi ñu ngi si ñoom ñëpp ñu ngi si xam nga am yéene jàppale ma bu baax a baax a baax combat bi laaj waaw fulaak fayda xam nga détermination mooy li ma la boo liggéeyee ba pare dangay dem def fulaak fayda ak détermination wane li nga liggéey te incha allah bu jour ba liñ liggéey yëpp nañ ko wane yàlla nag moo yor ndam te ñu ngi ñaan yàlla may ñu ndam incha allah mu ne li mu bëgg. Mm-hmm. mooy nga xeex ak booy Kayré xeex. nga xeex ak Modou Anta. Mm-hmm. xeex bu tàng jër. waaw est que loolu du nekk pression ci yow. ah non non déedéet parce que moom moom xam na ma. waaw moom lu mu wax rek mel na ni man mel na ni man maa ko wax. Mm-hmm. moom xam na ma xam nga ku la jur di la préparer xam nga. moom lépp lu mu wax rek dëgg la. waaw te Modou Anta ni mu waxee ak fi mu teg combat bi loolu foog mu am. parce que dégg nga ko barki dem neen dina ma duma bés bu ma xeexee ak moom ah moom <laughs> nante la <laughs> yooyu yaakaar naa ne du mooy xeex par force day am parce que jéen bu jël sa avance bëre dóor la nekkuñu mbapat waaw kon jarul ay bés bu xeexeek man di neexal yooyu yëpp dérangé booy bi yëngalu ko sax yàlla seede na ko amul leen lu ma ci yëngal kon yow pare nga pour xeex ak moom ah, loolu force la mu bëgg ko mu bañ ko bu yooruwul dañuy xeex incha allah arbitre soufflé génn bu yooruwul laa la wax dina ma rey wala ma rey ko arbitre soufflé génn seen diggante yéen ñaar mhm. mu dóor la ko nga fayu ay non est-ce que njëkk dóor yaa njëkk ah waaw waaw maa bay laa mujj sama combat la combat bi. lan moo tax mu nekk sa combat. waaw parce que booy dajee koo xam ne nawloowu la nawloowu la xam nga waaw lu ne mu ngi koy wax du ma mbër xam nga yooyu yëpp du tax nag ma ñëwee ñëw dof de na xam loolu li ma koy wax chaque jour benn benn lay doon day ñëw ñu reyante man nag moom mais bu fa nekkee di jëm a texel di yooru baax na <laughs> nañ dawal rek yàlla baax na. est-ce que est-ce que nekkul lim lim la magee loolu la lay jéem a jaay parce que. Mhm. Euh, expérience dana dana jouer ci combat waaw bu baax expérience dina jouer jeunesse dina jouer. Mhm. mais jéen nekkatul xale boobu ñu ñu war a nax ci làmb. waaw parce que làmb dama si juddu xam ko. Mhm. tarbiye ko ba pare bëgg ko daj si ay coono yu ne. waaw kon moom bu ko tegee foofu rek mu ngi nax boppam. lépp lép lu muy wax rek bu yeboo na doon dëgg mu ñëw ñu jëfee ko. pare nga yéen ñaar arbitre arbitre suuf la ngeen xeex cinq minutes. waaye loolu day am xeex moom day am moom. arbitre souffle rek Cour Fandiam mel ni mbàccum gerte. waaw waaw wala lu ko raw kay. incha allah dañuy ni mu wax ni mu waxee bu ko jëfee. problème bi loolu la gars yi li ñuy mën nañu ne fi taq rajo yi di bandi bandi lu arbitre siffle la ñun taxaw fee. waaw mais Modou Anta moom Baye xam nga. ah waay baax buy ñëw kuur gi lay àndaale. jeex na jaar mu dal mu man ragaluma kuur nag <laughs> waaw na indi ñu dóoru ba fajar. yàlla xam na ko ragaluma loolu de waaw noonu noonu lay loolu day am. jarul sax muy émission yi rombé maa ngi koy muy wax di taq rajo yi di ree booy bés bu xeexeek man loolu amul ma dem te ñëw lii nekkul nekkul mbapat bëre dóor la kon mooy xeex day am incha allah. waaw ndam nag yàlla moo ko yor mais xeex moom day am dañuy xeex ma moom. da ngeen di xeex waaw waaw doo ko bëre. mënul ñàkk. déedéet mënul ñàkk. Sénégal sax loolu ak ni mu waxee sax xanaa yebuñu amateurs yi sax man ko yebu amateurs yi mooy loolu. ayca nee na <laughs> mais mais Modou Anta dafa neexa ah. non dafa neex dafa neex dégg nga li mu wax nee la boo taxawee dëggal sa bopp. Mhm. prothèse à dents yi nga sol. Mhm. dina la dóor ba nga summil ko sa bopp. waaw mais dëggal sa bopp moo tax ma jël avance am te lii déggoo bëre dóor la nekkul bëre simple day fooyee xelam rek toog fi nga toog naan booy bës bu xeex ak man ak lii xanaa man a may loxo déggoo li muy woote da doon dëgg lii yëpp gaw ma ko de yàlla seede na ko. li mu wax ni gëw ma ci dara jour balaa koy gëm mu ñëw dëggal boppam. mais bu yàlla xam na ko loolu laa dañuy xeex ma nag moom loolu ma amul sam bu mu yooru dañuy xeex incha allah bu soobee yàlla. yow bëggoo mu yooru dangaa bëgg mu ñëw dëggal boppam. suul ay tànkam parce que moo ko seetaanee dama tàng keroog. daf la yëngal waaw yooyu eh, daf ma yëngal <laughs> gars yi ree ne ma ma yow xanaa xanaa ngaa ka nga ci làmb léegi waxu mbër la rek parce que moom dafa mel ni kuy war a bëreeg doomam noonu lay waxee quoi bés bu bës bu ñu ko diggalee mu xeex xam nga di wax mooy loolu nee na sa papa bu la sante nga xeex ak moom di nga ko rëccu dina la wariloo kon yàlla xam na ne dina ma wariloo parce que damay xeex ak moom da xeex ak moom waaw loolu amul sax ma dem te ñëw waaw jarul sax wax di reetaan dañuy xeex man ak yow waaw mi ngi lay gis wax ko ko jeex na waaw loolu laa koy wax ni loolu amul sax ay papam di ko dugal di ko digal ak yow ay di reetaan xoolal Modou Anta wax ko loolu <laughs> nañ nañ bàyyi ba jour ba <laughs> dama ne nga xool Modou Anta ne ko damay xeex ak yow Modou Anta damay xeex yow épergule yooyu nga wax na ñëw waaw na ñëw waaw fa laa yem. waaw mbër yow bii dafa mel ni yaa ngi bàyyi xel Modou Anta de. non non ah yow tamit man mu yow romb naa foofu man yàlla rek a ma jaaxal. est ce que ragaloo Modou Anta. ragal naa yàlla ba pare. wallaahi azim ragal dootuma ragal leneen si kaw suuf ma ne est ce que li ma la kay xanaa dee na ragal benn la jox naa ko sunu borom ba pare yàlla xam na ko li si des moom yëpp nit laa lay jàppee rek jox la cëru doomu aadama mais ragal moom bu mu tëdd sax di xalaat ne ñun am na lu ñuy waru ci moom ah muñ buñ naree wari dara ci Modou Anta ñu kon bu combat bi jeexee ñu dem def leneen te xam na ñu si kaw dañ ñuy rey xanaa bu ñu demee te foofooy suñu objectif foofu lañ bëgg dem incha allah. foofu nga teg sa bët foofu laa teg sa bët. est-ce que yaa ngi seetaan ay ay combat Modou Anta ay vidéo am xool li mu mënee ak li mu mënewul. waaye Modou Anta dama daan supporter sax avant li. ah bon war na yàlla. premier combat am ak lépp da daan bëree may bëgg. waaw ne kii ndaanaan la xam nga di ko waaw xam nga rek jóge Thiès ñëw fii tam di représenté Thiès wax dëgg yàlla xam nga ma koy supporter supporter yu métti muy bëri xam nga ne doon ndaanaan tamit. mu ko xam loo gis ci moom. champion ak ndaanaan mbër. waaw lépp lu ñuy laaj ci mbër mu ngi ci moom. waaw te loolu moo tax ma jël ko qualité yooyu. parce que si kaw moo gën a metti waaw kon man mosuma war lu nooy sama carrière yëpp. te xam naa ne der la ndaanaan la. cër boobu moom dama koy nangul baax champion la waaw. mais pour nga nekk champion da daan champion yi sa yoon. pour nga nekk champion da ngay dem si yoon. waaw wax nga ko sànq yaa ngi ko doon supporté muy bëre. Mhm. tey yàlla dogal ngeen war a jàkkaarloo. Mhm. war a jëflante loolu lu muy def ci yow. ak kontaan rek day wane ne bu dul dara sax làmb ñu ngi ciy teg ay pas parce que ñi nga daan toog di leen rêve di leen seetaan ñuy bëre tey nga dem ba war a bëre ñoom loolu sant yàlla la. waaw léegi nag da ngay ñëw confirmer rek waaw. ñëw confirmer dëggal sa mhm. bopp dëggal sa bopp waaw. ma wane ne xam nga làmb dañ cee bokk. waaw ñu incha allah le 4 avril. mooy combat bi xam na ne fi mu toll nii li ci des bëreetul. ay fan yu néew la ñu ngi ci dernier réglage yi. ñu ngi ci ñi ngi ci fan yu mujj yi. Euh, tey jéen su fekkonte ne bii euh, am na la nga xamante ne bii war na koo war na koo mottali wala war na koo dolli lan la wala lépp mën na. waaw lépp mën na de xanaa xaar yàlla yóbbuñ si jour bi may ma jàmm may ko jàmm xam nga may ñëpp jàmm ñu fekkee ko de tal ko. incha allah yàlla may ñu ndam. di woo autorité bi tamit xam nga ñi ci war a jàpp ñu gaaw rek jàpp si. parce que làmb moom du da ngay waaye ba bés bi wala yooyu instant yi ko gën a soxla. kon fi mu nii pare nga ci côté yëpp. waaw man moom pare naa. mystique pare mystiquement pare nga. waaye pare nañ lépp mystique am na ko gérer mais man liñ ma sas mooy wàllu entraînement yi ak stratégie bëree bi mais côté mystique moom. am na ñoo xam ne ñu ngi si xam nga waaw. ñu ngi si daal ñu waajal côté yëpp. di ñaata ñaata sëriñ ngeen seeti ci combat bi. non loolu loolu boo gisoon gars yi waaw mais man chaque fois damay gëm ne bu dul mystique du dara ñu daj. mais jéen maa ngi la gis ngay sangu maa ngi la gis ngay sangu nga naan ma ay. Ah, yow yow sax da nga sangu avant ngaa ñëw fi ah man tam man dama. waaw ñëppay sangu dugg ci toilette bi <laughs> sangu Sénégal moom waaw ñëppay mooy loolu. waaw loo xam ne àddina ñoo lay xool. mën nañu wax ne combat bi combat nga ci nga yokk da ci hmm. yokk li nga xamante ne bii mooy mystique bi wala li nga doon def rek nga def. <laughs> déggoo côté boobu daa am ñu ko gérer staff. Hmm? boo xam ne ñoom côté boobu ñoo ko gérer mais man li ñu ma sant mooy entraîner dalalal sa xel xam nga waajalal. waaw loolu rek après li si des nag yooyu yëpp day ñëw. yow daal côté physique bi nga gérer ak li nga xamante ne bii moom mooy euh, côté doole bi. waaw waaw boobu daal laa xam ne maa ngi si daal di di ci préparer te te pare nañ ci incha allah. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, incha allah le 4 avril. Euh, mm-hmm. est-ce que Modou Anta du du la ëpp doole. ah mën na nekk de <laughs> parce que dalanteeguñu. waaw <laughs> dalanteeguñu daal mais incha allah bés bu ñu dalantee lépp dina leer dinañ xam façon entraînement yi waaw lépp daal dina leer incha allah. le 4 hmm. avril lépp dina leer. waaw parce que dalante dina am. Hmm. waaw incha allah. dinañ daje maam mais fi toll nii lan ngay yëg ci sa bopp. waaw instant moom alhamdulilah rabbil alamin yàlla xam maa ngi maa ngi baax daal. yaa ngi tëdd di récupérer bu baax maa normal. maa ngi lekk ba suur maa ngi naan ba mandi maa ngi normal. Hmm. waaw di rafetlu tamit sama mbokk mbër yi. xam nga sama mbëru école su école su mbéjun yëpp su ma limee damay juum. waaw ci kaw ba ci suuf nag. ñëpp maa ngi leen di sant gis naa seen taxaw. yéene biñ ci am di ci jàpp. ak mbër yi nga xam ne dañ bàyyi seen écurie dem jóge beneen écurie ñëw di si jàpp ci mel ne ñoom Dour Sekeen ñoom Mam Biram Serigne Ndiaye numéro 2 xam nga ba ci ay double moteur gaa yëpp mbëru Medina yëpp daal ñëpp ñu ngi si topp sama ginnaaw waaw Medina bi cent pour cent bi ñëw nañ ñëpp ñu def ko seen yëf ma ci kontaan tam di leen ñaanal ñoom it xam nga seen combat ñoom ndam xam nañ ne ku ci mel ni tamit sama rakk bébé Diène xam nga waaw bébé Diène xam nga dafa ne ci loxo yoon di ñaan yàlla yàlla teggal ko natt boobu xam nga parce que waaw champion lan daanaan la mais nattu ku ne lay dal ci kaw suuf. du nuyuwaale waa 100 mètres tamit. xam nga campé naa la ak ñi caabi féete ginnaaw ñëpp ak région bi yëpp daal. waaw di leen ñaanal jàmm. xam na ne Diène day yëngal. incha allah <laughs> ambianceur la. Mm-hmm. Euh, la 4 avril côté chorégraphie. Mm-hmm. côté bac lan ngay andi. mbaaw loolu nag dama kay bàyyi ci loxo Fallou Faye Fallou Faye doomu Mbaye Dieye Faye waaw ñoom xam ne ku xam ne ambiance moom ñoo ci toog. seen yëf Fallou di ko di nuyu yaayam maam Ndiaye sama yaay xam nga ak papam Mbaye Ndiaye Faye ñoom ñëpp dañuy jàpp ci combat bi mm. bu baax ñoom dañ may tëggal te yàlla rek tax di ci def seen sax seen doole. mais yaa ngi préparé fecc yu bees préparé chorégraphe yu bees incha allah loo xam ne waaw. parce dafa am catégorie bu ñu dugg ci làmb. Mm-hmm. te catégorie boobu mën naa ne mooy làmb dëgg. Mm-hmm. te dañu war a ñëw wane ne ñun ñu ngi ci làmb. Mm-hmm. incha allah te loolu dama dama koy bàyyi seen loxo rek. waaw Fallou dina ko gérer incha la mën waaw di nuyu waa 5-5 yëpp tamit. a yóbbu waaw bu baax combat bi mën naa ne mooy sama carrière parce que li ma ko wax rek moo tax dama koy sant ci loolu parce que yàggoon naa bëgg dugg mbër boo wax jéen mu ne defagul preuve mhm. ma. kon loolu dama ma may chance. Mhm. dama ko jël pour daan chance nag bu ñu la ko mayee da nga koy jël dem. sa da nga koy waaw da nga koy exploité. mais est-ce que nga foog ne eh, chance boobu ko dina yomb. Ah, naa la wax de làmb de ci kaw ba suuf. ku ciy dugg di xalaat am lu yomb bu yeboo nga dem toog parce que foofu góor la waaw te xam naa ne làmb loo gën a dem muy gën a metti te loolu moo tax ma jël ko li yi di wax ndaanaan qualité mu yor dafa saf yàlla xam ne loolu moo tax ma jël ko waaw parce que lu la wane sa bopp combat bi lu mu la jaral waaw lépp lépp la ma lu ma am lu ma amul lépp xam nga def naa ko ngir yàlla may ma ndam yàlla nag moo yor maa ngi ñaan mu may ma ndam incha allah ñu ànd béggee waaw yaa ngi ñaan yàlla may la ndam le 4 avril incha allah euh, bu ci yàlla àndee. Mansour euh, euh, tey ki ma jàkkaar lool moom mooy Diène Kairé ñu gis say combat. macha allah parfois consigne ngay bëree champion. dëgg la sa papa parfois daf lay tënk est-ce que combat bii nii. di nga nangu loolu ñu tënk la tey téye la ci benn point ne la yemal fii wala sa mbiri bopp ngay àndi waa moom moom bi baa dafa ma teel a libéré. parce ah, que waaw parce que bii passé gars yi dañ dal ci kaw mu yaa téye booy bi ok <laughs> waaw nag mu ne ma xam nga bëreel waaw yow daal waaw tey toll nañ fi si làmb boo xam ne tey mën nañ war nañ mën demal a wax très bien waaw hmm. parce que mbër ñaari combat ñett rek a am a hmm. hmm. bi moom xam nga libéré nañ ma quoi kon daal bi yoon dañ la libéré firi sa mbiri bopp ne ma xam nga doxalal waaw waaw ak xel waaw nekkatuñu ay xale ci làmb nga fas yéene doxal waaw fas yéene doxal bu baax di ñaan yàlla tamit may ñu ndam loolu ah non ñun moom wax dëgg dara diisul si ñun. Hmm. waaw dara diisul. sport moom bu entraîné ba ba pare. Hmm. sportif xam nañ loolu après dara dootul diis yow yàlla daal moo ci des. Hmm. instant yi moom sans pression zéro pression la ñu doxee. le 4 avril looy wax amateur yi. ndax amateurs yi di leen nuyu rek bu baax xam nga parce que ñoom ñooy làmb di nuyu waale jeune amateur tamit ñoom ñëpp di ko teg si loxo góor góorandooy mu ziaral ñu gaa yëpp parce que ñoom ñoom ñooy làmb ak ak amateurs yu mag yi suñu père du jaañ tamit ñoom ñëpp. ak supporter fan sa club yi yëpp di leen wax ne namoon nañ làmb làmb nag tijji na xam nga waaw nañ ñëw rek xam nga def ko ci fair play xam nga teg ko ci yoon daal hmm. parce que ñëpp namoon nañ làmb. Hmm. lay wax fan si. waa fan si di leen woo rek ñoom ñu ngi si sax gars yi moom di leen woo ñoom ñëpp waaw di leen wax ne xam nga gis nañ seen taxawaay gis nañ yéene yëpp hmm. te ñun ñu ngi si nañ dalal seen xel bu baax xam ne seen mbër mu ngi si jàmm mu ngi si wàccaay yi te incha allah yaakaar xam nga yàlla may ñu ndam bu baax a baax a baax di nuyu waa Derkele tamit xam nga Mm-hmm. gis nañ seen mobilisation ak niñ koy waajee ñëpp. Mm-hmm. secteur boobu yëpp tamit daal. Mm-hmm. yóbbanteel ma benn yóbbante Modou Anta mi ngi lay dégg. waaw Modou Anta maa ngi lay ñaanal jàmm ju bari. waaw di la ñaanal tawféex xam nga nga ñëw làmb ji ak jàmm. waaw ànd ak say mbokk nga ñëw si jàmm ma daan la si jàmm nga ñibbaat si jàmm sax sama ganaa la. yaa ngi baab de. <laughs> yaa ngi baab non non sama ganaa la yaa ngi baab ku metti sama grand non yaa xam nga ma yóbbante ko. yaa ngi waaw léegi looloo yóbbante bi naqaree bëreel mais xam nga ne bu arbitre génnee suñu diggante bu protestant sax ngay sol wax du am moom lu mu mën ci man da koy def lu mu mën ci moom lu ko raw dama koy def waaw kon loolu yóbbante bi loolu la rek maa ngi lay ñaanal jàmm nga ñëw ñëw ak jàmm waaw daan la incha allah. kàddu gu mujj gi lan la waaw xam nga di rafetlu seen teewaay aussi. Mm-hmm. di rafetlu seen liggéey tamit Leewtoo yéen moom xam nga mën naa ne da ngeen yokk mm-hmm. waaw ba ngeen ñëwee làmb ba tey gis nañ seen liggéey seen contribution si làmb ji xam nga waaw di ko rafetlu daal di nuyu Sénégal yëpp waaw di ziar aussi xam nga ñi may ñaanal sa mbokk séeréer yi fogale séeréer maxey simna nuun waaw njokaa nuuno njal xooya nuun no combaane jeg ma mi fa ndam teen a paax Modou Anta Modou Anta Gueye Modou a ne nu ndamin a paax yaa ma koy layaa rek o xooy ka may fa lay o xooy layaa yaaga bo ndik ndam yo teen a paax waaw o kiin waage jeg teen a paax daal waa Fatick xam nga mbul laxaar sama dëkk ñaaxaar jaxaaw paataar secteur boobu yëpp waa mbudaay séeréer tam di leen nuyu bu baax a baax a baax di nuyu waa waa axlu Cheikh Moussa Cissé bi yëpp waaw Cheikh Souleymane ñaan Baye Serigne Ndiaye ñëpp ñu ngi leen di ziar sang yëpp daal di leen wax waaw waaw ñu yokk ñaani rek waaw incha allah yàlla baax di nuyu sama yaay yeeg sama papa yeeg ñëpp daal waaw Medina bi yëpp daal gis naa seen taxawaay waaw Rebeuss ASC Medina yëpp tamit Dames Kusum Njaacaar xam nga waaw déggoo comprendre nga xandaalu penc mbëti pom fan ñëpp ñaañ cookeer jamono zone 1 bi yëpp zone 2 zone 3 zone 4B zone 4 ñëpp daal zone 7B ñëpp bàyyiwuma kenn ñëpp daal ndakaaru àddina daal waaw di nuy diaspora bi tamit diaspora bi ñoom ñëpp maa ngi leen di woo États-Unis France sama doom day ñoom seng seng yëpp ñoom xaadim sulay ñëpp daal ñu ngi jàpp comme ñoom Père Mar Gueye ñoom Mbagnick waaw États-Unis ñëpp daal New York Rhode Island ñëpp ñu bëre bu soobee yàlla daan moo daan te jël bu rëy si kàttanu yàlla waaw incha allah. waaw xam nga ku ci mel ne sunu père Alsane Ndoye moom day sonn ci combat te combat bi combat am la xam nga maa ngi ko ciy wow bu baax waaw ak Bismi Ndoye tamit waaw sunu père Mathiam bi ci bi sunu père Mbacke Dioum tamit xam nga ñu ngi ko ciy wow bu baax waaw mu ñëw ñu ñëw jàpp si daal ñoom ñëpp ak waa double ballon d'or tam El Hadj ñu ngi ko ciy wow ak Henri Camara ñoom ñëpp fii lañ nekk saal bi entraîné xam nga waaw di si jàpp daal ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo ci combat bi waaw jaajëf jaajëf champion mbégte ak contentement la ñu amoon doon dalal le grand champion Diène Kaïré di espoiru làmb di ki nga xamante ne bii euh, làmb ñi ngi koy bàyyi xel ndax mi ngi ci yoon macha allah mu war a bëre ak Modou Anta incha allah bu ci yàlla àndee le 4 avril. Mm. ma àndoon nag sama caméraman Mansour Fall le benjamin des caméraman mm. caméraman bi nga xamante ne bii macha allah ndaanaan la ci biir ndaanaan yi. merci beaucoup Yacine Fall kontaan naa ci yow di leen dig daje incha allah bu ci yàlla àndee beneen daanaan ak beneen ci beneen entretien.